ma gars yi bu bu ñu wax xaar dañuy fecc ah xaar sax nii ah, moom lañ fi am tamit dëgg neexul without money it cannot be definitely soo boo xamante ne foog muy dugasi de il muy dugasi du maa ngi nii toog five and ten minutes bu nekk may leen ma tuuti ma dugg ci Facebook bi nuyu kii di Imam Malick Thiam <laughs> ah sama càmmiñu bopp bi nga xamante ne bokku ma ko ak kenn. Ah. dana bu tedd bi nuyu naa la. tubarkalla macha allah mu nekk nit ku xarañ. ndeysaan taalibe Maulana Cheikh Ibrahim bu ñëpp xam. mu nekk koo xamante ne nii dafay faj ay jàngoro yu baree baree baree bari bari. Thiam Babel Demba Thiam du yàgg dara dinaa la invite fii ci plateau bi nga ñëw toog jàkkaarloo askani euh, Gambi. Mhm. Euh, ñu waxtaan nga gën a yaatal incha allahu rabbi. Mhm. yow jàmm rek ngay am taalibe Maulana Cheikh Ibrahim. jërëjëf ah lii weesu na loolu dañ koy dëgg rek suñ dellu see waaw mu neex <laughs> we just uh, have a short break and come back service system be in this country definitely hunger. is very poor. dafa poor up to an extent like xam nga people are actually disturbed xoolal soo naree jógee baara nga cross nga pour ñëw liggéey soo jógut fajar xam nga dangaa leet xam nga lu gën a métti gaal yaa fa waaye am na ñu bari ñoo xamante ne ko ñeme ñuñ gaal ñeme gaal buur boo duggee féeri mhm. boo demee baara mhm. bu ñëw fii mhm. féeri bu bu ñëwee dafa am pour xaar three hours waaw soo amee nit ku feebar soo amee nit ku feebar wa rabbil kaaba man dal na ma du benn du ñaar du ma toog ci télé di waxtaan di wax di fen dara jaralu ma ko xam naa man damaa man damaa xam nga man xaw ma ci dara man damaa gëj a cross buur dangay toog li mooy expérience de dangay toog ba xaddi understand nga te tamit du ñëpp ñoo a dugg a gaal du ñëpp ñoo ñemee ndox xam nga nga toog affaire bi da nga ciy toog di neer ñu ne déetamay nga bëgg a dugg ci gaal boo xamante ne nii gannaaw gi bu dóoree ndox bi daf leen di fekk ci si biir nga yaakaar ne yow foofu ngay yem dafa understand mu nekk affaire bu yéeme affaire bu doy waar ñu war ñu ci mun a dimbale